benn waxtu ci première chaîne de télé privée bu Sénégal yemoog waxtu xibaar yi nees ñu dikk ak yéen ci li ci gën a fës. bokk ci li gën a fës ci xibaar yi ginnaaw génnuk euh, xalif général des Mourides di ñaawlu yenn ci doxalinu soxnaay da Diallo moom ci boppam nag euh, dal dinay def ab vidéo ngir jéggalu Serigne Mountakha Mbacké waaye itam ñi nga ci yoonu Mouride di ñaan euh, ci jege ñaaleem ñu jëfee ndigal mairie bu Nguéniène am njiit bu bees wuyoo ci turu Maguèye Ndaw moom nag moo fa daal di wuutu Ousmane Tanor Diagne mi dëddu ñi nga xamante ne nag moom moo di vote bi amoon ci teewaayub yenn ci kilifa ñu daal di wax ci wàllum njàng njàng jàngale étudiants yi nga xam ne ñoo bootu ci mouvement carbone 14 daal di ñaawlu bu baax yenn ciy doxalin diggante Bachir ak Boris ak coow la nga xamante ne moom moo tukkee woon ci seenub débat rubrique économie di waxtaan ci lu jëm ci wàllu koom Aïssatou Diop Tall ni ki tey li ko soxal nag mooy investissement bu ñi nga xam ne ñoom ñoo fare ci secteur privé allemand bi di amal file ci Sénégal. mi nga ak mbokk yi ñu rafetlu baax seen ànd ak ñun rawatina di taataan xibaar yi file ci première chaîne de télé privée bu Sénégal yooyu li xibaar dañu koy door ak nañu ko junjee wax nag ci coow li nga xamante ne fële ca diwaanub tuuba moom moo fa daal di jokk ginnaaw nag kii di xalif général des Mourides ba mu génnee daal di àddu nag ci li nga xamante ne moom moo jëm ci yenn ci doxalinub soxna Aïda Diallo moom ci boppam sax a nekk soxna ci Cheikh Béthio ni ki démb daal di ne def vidéo ci biir vidéo bi nag muy yëbgalu tuub ci kanamu ki nga xamante ne moom moo di Serigne Mountakha Mbacké moom soxna si nag lam ca teg mooy ndigal dina ko daal di jëfee di sàkku itam ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo jaay jege ñaaleem ñu doxee nu ni mel ñu teewlu ay kàddoom. yi nga xam ne nag moom laa yëkkati muy kàddu tuub ki sama diggante ak xalif général des Mourides muy sëñ Muntaxa Bachiru Mbàkke di tuubal di ci lu ma xam ak lu ma xamul di tuub ci lépp loo xamante ni euh, dox na fi te muy loo xam ni kat ak matadi doomu aadama la maa ngi ko ciy tuubal bu baax di ko jéggalu wax ne man day ci ndigal rek laa aju moom day li ma ko wax rek day sëriñ ci ñun ndax moo fi toogal sëriñ Tuubaa day way jurit ci ñun lépp loo xam ne doxin la walla waxin wu dëppoowul ak li muy digle mbaa la muy tere moom day ñoo ngi ko ciy tuubal te di ci tuubal mbooleem umma islamique bi waaye di ci tuubal it yoonu murit moom daal maa ngi tuub maa ngi tuub maa ngi jéggulu te di ko seereel sëriñ Tuubaa ne tuub naa lépp loo xam ne lu ko naqaral ndax yitte bi day du def lenn lu ko naqari maa ngi wax ak nag sama mbokkum taalibe yi nga xam ne maay seenu jëwrin di leen wax ni moom day li xale fi bëgg rek moom de lu mu nañu moom la bëgg mbaa lu mu nañu moom la bëggul ci loolu lañu fas yéene ne mi ngoog eh, yooyu lay kàddu nag eh, mel nii ñi nga xamante ne ñoom ñoo fare eh, ci daayira bi ñu dippee Safinatul Amaan déggeewuñ ko nu mel ndax ñoom la ñu jàpp rek mooy tuub yi nga xamante ne moom Soxna Aida Diallo def na ko nekk lu wér ci moom ba tax na ñu koy aaye lépp lu nga xamante ne rek jëm na ci wooteeg mbooloo ci diwaanub Touba laata ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo fare ci Safinatul Amaan di woo rek kilifa yi maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo fare ci nguur gi ñu jël ci ay ndogal ndax ñoom jàpp nañu ni daal daal lu jëm ci mbir mi daan ko topp ba mu daal di jeex daan ci dikkaat ak yéen ci yeneen jotaayu xibaar. mbokk yi wax ci wàllu euh, politique ak li nga xamante ne moom moo jëm ci mairie bu Nguéniène ni ngeen ko xamee Ousmane Tanor euh, Dieng nekkoon na maire ba euh, foofa ba mu dëddoo nag ni ki démb daal dinañu amal vote bu yees ki nga xamante ne moom moo ko jiite jamono ji nag di Maguette Ndaw bokk ci parti socialiste ci lu yemook nag juróomi juróom fukk juróom fukk ak juróom benn conseillers municipaux yoo fa nekk ba ñu voté ba noppi moom daal dina am fanweer ak benn ci baat nga xamante moom la doon janoon la di di wuyo euh, ci euh, turup Etienne euh, Sarr moom am ñaar fukk ak ñett mel ni kon Maguette moomee nag moom moo jiite foofe di mairie bu Ngéñeen ca beneen wet ga itam kii di Simon Sarr bokk ci APR moom mooy premier adjoint au maire ca diwaanu Mbour ñu fekk fa Mamadou Diop Nguéniène am maire bu bees di wuyoo Maguèye Ndao moom nag mu remplacé kii nga xam ne mooy Ousmane Tanor Dieng génn àdduna ci weer yi ñu passé Maguèye Ndao moomu nekk socialiste moom nag mu daan kii di Étienne Sarr bi nga xam ne moom la bokkal parti Étienne Sarr moomu sax moo nekkoon premier adjoint au maire bi fi Ousmane Tanor Dieng nekkee Maguèye ndaw ci juróom fukk ak juróom-benni conseil yi nga xam ne wote nañu am na ci fanweer ak benn yoo xam ne ñoo ko woteel kii di Étienne am ci ñaar fukk ak ñett benn baat nag la kii di Jean Baptiste Ndiaye nekkoon ñetteeli candidat bi am benn bulletin nul rek moom lañ ci nemmeeku gannaaw wote yooyu ñu jublu ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk adjoint yi léegi nag yi nga xam ne mooy Simon Sarr jiite congère communal bu Ngéeñeen moom la ñu tabb mu nekk premier adjoint au maire moom nag mu am lu toll ci fanweer ak ñaari baat ñaareelu adjoint au maire bi kat di Badara Jaxate mu jege lool kii di xalifa Sall moom nag moo am fanweeri baat ak ñeent ci juróom fukk ak juróom-benn ñi nga xam ne wote nañu waaye nag li ñu gën nemmeeku moo di ne amul benn yoon parité boo xam ne respecté nañu ko ndax kat ci équipe municipale bi nga xam ne moom la ñu tabb amul benn jigéen leneen li nga xam ne moo gën a jaaxal waa Ngéeñeen mooy adjoint au maire yëpp yi nga xam ne ñoo nekkoon ak Ousmane Tanor ñoom ñëpp dañ leen a daan daan yu méttee métti loolu di wane ne Nguéniène fi mu nekk nii équipe bu bees moom moo koy diriger gannaaw ñu egg ci élection municipale yi ñu dëgmal ñu fàttali ne Maguette Ndaw gannaaw ñuy def Nguéniène commune kat moo fi nekkoon président conseil rural mu nekk expérience boo xam ne ñu bare bare jàpp ne ci la jaar ngir nekk meeru Nguéniène ndax kat moom am na jàppandalu waa APR waa AFP ak ñi jege lool kii di Khalifa Sall wàllum njàng ak njàngale la ñuy àddu du Diop ndax euh, ni ngeen ko nemmeekoo ci ñi nga xam ne ñooy faral euh, di jàll ci xarlub université Cheikh Anta Diop bu ndakaaru xar kanam euh, bu yees lañ fa daal di nemmeeku ndax lu jëm nag ca mur yàq yu ni mel daal nañu cay dessiné lu jëm ci ki nga xamante ne moom la ñu tuddee université ba di Cheikh Anta ci boppam mbir mu ni mel nag ñi di ndongo yi daal di koy rafetlu bu baax wax ni nag jot na ngir lépp loo xam ne liggéeyam làkk jëfam ñu gën koo jëmmal ngir nag ñi nga xam ne ñoo fay daara ju kawe ja mën caa bàyyi xel Thérèse Samb doxantu woon na fa ci caméra bi Djibi Diallo. fësal la jëmmam ca buntu UCAD. jamono ji jëmmu Cheikh Anta Diop mooy daa day teeru bépp étudiant. mu doon li nga xamante ni nag munoo romb te doo ci bàyyi xel. ndaxte day sargal la kii di doomu ceytu étudiant yi nag ñoom gis ni. lile dindi na kumpa bu ñu amoon na ci seen parrain. daaw fi laa nekkoon waaye mun naa dugg si fii Euh, du ma gis benn photo buy refléter ne fii c'est l'université Cheikh Anta Diop parce que à chaque fois da ngay dégg université Anta Diop mun nga nekk fee village di dégg l'université Cheikh Anta Diop l'université Cheikh Anta Diop te mun nga ñëw fii sax te doo ko xam ne c'est un peu paradoxal nga jël université bu toll nii tuddee ko professeur Cheikh Anta Diop te gisuñu fi ay jàngaleem non seulement ay œuvre am ay yoo xamante ni dafay refléter la personne de Cheikh Anta Diop ba yàlla dogal ci ñu fi jot a toog nii euh, ñu taxaw appuyer loolu ba tey boo rombee xar kanamu université bi gis ni am na ci coppite ki nga xam te ne mooy professeur Cheikh Anta Diop tamit am na beneen xar kanam boo xam te ne tey ngi ko am ci eh, mi ngi koy am ci bi xel mën naa dal ci ni feeki eh, jamono mën na am na amaan na umpale gi ñu ko umpale dana dañ. mu doon nag ku mag waaye yenn ci ay étudiants gis ni ñu ci bëri ci ñoom xamuñu liggéey bu am solo bu mu doon def. étudiants yi nga xamante ne ñoom ñu ngi ci faculté science peut-être ñoom ñoo waroon mën a avancer ci lancer boobu contrairement a d'autres Anta Diop liggéey waru warul mën a naax saay un bon jour du jour au lendemain donc héritage c'est à nous de le préserver en quelque sorte. Euh, étudiants yi am na lu ñu mën a def mais am na loo ne mënuñu ko étudiants lan la ñu mën a am mën a def mooy l'ingéniosité boobu ma lay wax ñoom ils ont des limites parce que mën nañu teg ay idées teg ay projet teg ay initiatives mais ils non pas les moyens pour pour pour pour pour euh, euh, finaliser et réaliser donc c'est avec l'appui de nos autorités étatiques. ñi nga xamante ne peut-être surtout euh, ci lu gën a jege ñooy yor université bi ku waa ku dugg deme noonu ñooñu tey ñoo mën a finaliser loolu réaliser ko. du ñàkk nag am na ci ay étudiants yu gëstu ci téere yu mu bindoon wante nag du ñëpp. xam naa ni moom nañ nommé woon euh, le pharaon di savoir moo nekkoon ki nga xam ne yoroon na xam-xam bu bëri bi nga xam ne sax tubaab yi ci moom dañ doon ñëw di wàllisu ay xam-xam ci moom waaw loolu moom jàpp nañ ko ci moom bu baax. bien vrai que am na ko xamagul ba tey. comme boo wàccee encore ci yeneen niveau études yi euh, jëm ay côté élèves yi bon cadre étudiant moom du ma ne euh, euh, am na étudiant yu ko xamul. étudiants yi nag ñoom lu ñuy xaar moo dañu def ab benn mémorial bu rëy ca biir université Cheikh Anta Diop de Dakar. mars 2018 li di mouvement carbone 14 amaloon na ab dox ñaxtu bu mag ngir ñu gën a fësal téere yu nga xamante ne Cheikh Anta Diop bindoon na ko. tey jii ak tableau bi le mu mel ni rek seen dox ñaxtu bi tàmbali naa am solo ni nga ko daanelee sax foofu la ñu yëkkatee desandi ak euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo di étudiant ay fare ci mouvement carbone 14 tey jànge foofee ci université Cheikh Anta Diop euh, bu Ndakaaru ñoom nag ginnaaw ba ñu fësale seenu bëgg-bëgg ngir lépp lu nga xamante ne euh, moom Cheikh Anta def na ko ñu gën koo fësal ci daara ju kawe ja ni ki démb àddu nañu ci leneen maanaam wax gi nga xamante ne di débat bi juddu woon ci mbiri Cheikh Anta ci boppam diggante ñaari borom xam-xam di Bachir ak Boris ñoom ñi xam ne ñoo di étudiants la ñu jàpp mooy bëri na ay borom xam-xam yoo xam ne dañoo euh, profité euh, ci débat boobee ngir kon gàkkal liggéeyub Cheikh Anta te mbir mu ni mel ñoom jàpp nañu ni nag teguñu ko ci yoon ñu teewlu ak euh, nga xam ne moo di ma Mansour seen bokk ci ñi sanc mouvement carbone 14 ci micro Thérèse parce que Cheikh dafa ne woon ndaw ñi nañu dem wuti xam te buñ ci taay même bu fekkee ne dañuy wut xam dem am xam ñëw di ma contredire sax man bëgg naa. kon donc débat boobu li ci am pesé nañ débat bi donc loolu noonu rek peut-être ak yi la parce que Cheikh Anta moom loolu la bëggoon parce que Sankara am na habitude ne bés bu ñu reyee africain c'est parce que dañoo armé beneen africain mu rey africain boobu te Cheikh Anta xam nañ ne amoon na maanaam neexoowuloo nag nasaraan si ñu jaar ci ki ñu war a jaar ba tey yàlla def li nga xam ne moom la def léegi nag ñun dañoo bëggul xeex boobu noonu mu am prolongation comprendre xamuñu lan kan moo leen di wax loo mun naa am am na ku nekk ci côté di leen waxloo ainsi de suite donc nag ñun en tant que ay disciples Cheikh Anta Diop en tant que ay nit ñu gëm Cheikh Anta li ñu mun a def moom mooy di observer képp ku nga xam ne yaa ngi wax lu safaanoo wala yaa ngi wax loo xam ne waroo ko wax ci nit kii di Cheikh Anta ñun ñu génn ne la ah li ngay def kat wala li nga wax waroo ko wax parce que Cheikh li mu def mun naa am yow defoo ko. ñu àddu ci lu jëm ci wàllub euh, koom ginnaaw euh, njàng ak njàngale 1979 2019 muy ñeent fukki at ginnaaw ba ñu sàncee euh, ba ginnaaw kon ba ñu daal di xaatim lu jëm ci ab accord bu nga xam ne day tax dem gekk dikk gi ci doomi aadama yi waaye itam seenub alal daal di ñoŋ ci espace CEDEAO mbir mu ni mel na ko waral ba ñu daal di ci sampub laaj ndax mbir moomee am na lenn lu mu jural réew yi Afrique yi bootu ci boobu lépp kuréel professeur Omar Ba di ci ndaay leeral moom xam xam-xamam màcc jëm ci wàllub koom la mu jàpp mooy naam ay jéego def nañu ko ci waaye nag faw rekk ñu gën a baral euh, liggéey bi leneen itam la mu ca yokk mooy xel mën naa dal ndax koppar gi ñu dippee éco euh, bu ñu ko indee dina daal kon euh, gën a ñoŋal lu jëm ci koom ci réew yi bootu ci CEDEAO ñu ànd ceeg reportage Babacar Tambido ak Abdoulaye Ndiaye. gannaaw libéralisation bi ñu def ci frontières yi li nga xamante ne ni nag mooy accord libre échange ci espace ci réew yi nga xamante ne ñi ñoo ci daal di bokk 40 ans ba ñu ko taxawalee ak léegi ñi nga xamante ne ni xelam dafa màcc ci wàllum koom di max Ba di ñu xamal ni bilan bu tàggatémbe moom la accord boobule daal di am. circulation bi circulation marchandises yi produits yi ak service yi dafa waroon yokk parce que amatul barrière pour que ñu mën a circuler jëm jóge ci benn dëkk dem ci beneen dëkk bi loolu nag. dafa war a nekk loo xam ne dañ ko war a développer dañ ko war a yokk seet ni koy mën a facilité moom mooy nu ñu koy mën a yombalee. réew yi nag daal di des seeni système yu ñu xam loolu bokk na ci li nga xamante ne ni moo tax ba bilee accord mun ñu ko wéyal bu baax waaye bu ñu sukkandikoo ci professeur Oumar Ba moom jàpp ni rek yaakaar mën na am ci bu ñu taxawalee li nga xamante ne nii moo di menu unique di ECHO. Euh, defi boo xam ne bu gën a taxaw ci euh, luy yóbbu CEDEAO mu am doole moom mooy défi euh, bu jëm ci monnaie moom mooy xaalis bu ñu war a utiliser. parce que ñu ngi koy laam-laamee depuis at yi yëpp passé que war nañu créer war nañu teg en place monnaie benn monnaie boo xam ne moom mooy euh, l'éco monnaie boobu nag pour le moment dañ ko waxtaanee rek ba wax 2020 d'ailleurs lañ ko war a bëgg a commencer mais monnaie boobu du mën a liggéey tout de suite mais mën nañ ko ubbi déjà te suñ ko ubbee l'objectif mooy finalement ñu arriver te kooku défi bu xaw a sori la pour ñu arriver pour que éco monnaie boobu mu mën a nekk monnaie ci biir réew yëpp nga xam ne moom la ñu utiliser gis loolu ba bu ñu ko defee su activité économique dafay yomb. lu ñeel wàllum dem beeg dikki bi ñu gën ci bàyyi xel naka noonu jokkalante bi itam ak activité yi lay réew yi nga xamante ne nii ñoo bokk ci espace CEDEAO rek di amale ay entreprise ci seen biir loolu bokk na ci défi yi nga xam ne mooy ni rek bépp signataire bu accord libre circulation bu nit ñi waaye itam seen moomeel ci espace bile. desandi ci wàll wi wax bi la yoon nag ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di doomi aadama yeeg seen dem ak dikk wutali yeneen i réew yu bootu ci CEDEAO ak nga xamante ne moom moo di Birame Diouf nekk coordonnateur média bu kuréel gi di Panas Afrique de la mu jàpp nag mooy faw rek li nga xamante ne moom moo tënk réew CEDEAO yi ci lu jëm ci dem geeg dikk gi ñu daal di koy gën a fësal ngir askan wi gën cee mën a bàyyi xel naam sax jàpp na ni moom itam ay jéego ñu ngi koy amal ci wàll wi biram Diouf ay kàddoom ak Babacar Tambe Seydou. waaw te loolu moom yàgg na depuis 79 ba léegi quarante ans boo xoolee euh, texte bi moo mag jeunes yu bëri mais boo jëlee autorités yi nga xam ne ñoo fi nekk ak ñi nga xam ne ñoo commission de la CEDEAO maanaam liggéey de euh, vulgarisation bi ci ëpp defuñu ko donc loolu moo tax ñu bëri xamuñu ko donc ñun partenariat bu ñu am ak UNESCO IPAO li ñu bëgg mooy gën a yaatal. Euh, Euh, protocole boobu nit yi gën ko xam ba nga xam ne bu ñuy journalistes yi bu ñuy wax ci affaire migration en Afrique de l'Ouest dinañ mën a sooraale ne am na benn texte bi nga xam ne moom mooy faciliter euh, le déplacement des populations dans l'espace CEDEAO waaw li ñu constaté mooy ñun euh, bu ñuy wax migration immigration clandestine la ñuy wax transfert de fonds lu ci ëpp on met le focus sur l'Europe ak l'Amérique du Nord mais recherche yi wane nañu ne 84 pour cent des migrations ont lieu de, euh, dans la sous-région et en Afrique plus de 84 pour cent donc nit yi fii la ñuy gën a bouger que que Europe mais ñooñu euh, d'abord euh, du wax ci lan mooy facilité déplacement boobu mais même seen contribution dans les transferts de fonds du feeñ seeni droit dans les pays de de d'accueil dans les pays de résidence duñ ci ñëw. loolu yëpp bokk na si lu tax ñu ne. ay Aïssatou Diop euh, taal ngeen mën a àndaat ak moom ci beneen rubrique bu ñu jàkkleel lépp lu jëm ci wàllub koom euh, alxames euh, gi ñu dëgmal laata lool ci yeneen xibaar ni ki tey ñu daal di addu itam ci biti réew lu ëpp ñeent fukk ci ay njiitu réew ak gouvernement daal di dajaloo fële ca diwaanu Russie ak it fële ca diwaanu Russie rawatina sa Sotchi bokk ca lu ñuy waxtaanee nag li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllub koom ak jokkalante diggante réew moom. moomee ak réew yi bàyyeeko euh, ci euh, biti réew euh, li nga xamante ne nag moom moo di xalaatu Vladimir Poutine mooy opportunité yu bëri mën na fa feeñ bu ñu sukkandiko ci kii di Abdou ay dara xam-xamam ci jëm ci wàll wi la mu jàpp nag mooy réewum Sénégal mën na ca profité bu baax a baax rawatina itam jot investissement ñeel plan Sénégal émergent ñu teewlu ay kàddoom mi ko dañ ko max mendi donc pour élargir spectre bi pour mën laal dëkku Afrique moo tax mu convoqué réunion boo xam ni day jàkkaarloog africain yi dama yaakaar ni nag réunion bi dana doon occasion pour moom pour mu définir benn politique bu leer. waa Sénégal li mu ci mën a gagné bu fekkee ni en matière de sécurité la rek sécurité bi Poutine di doxal ak réew Afrique yi ñun du ko mën a doxal ak ñun. parce que bu dee dëkk bu nekk en nga ñëw intervention jàppale leen ci guerre bi ñu nekkuñu ñu en nekkuñu en conflit mais Russie mën nañoo jàppale sur le plan sécuritaire ñu moderniser suñu armée moderniser suñuy service de renseignement ak Russie aussi am na expérience bu rëy ci li ñu wax la sécurité transfrontalière ak sécurité minière yooyu yëpp dañ ci am expérience donc mën nañ ci jàppale sur le plan sécuritaire maintenant bu fekkee ni sur le plan euh, développement déjà Russie ñu ngi fi au Sénégal ñu ngi def ci pisciculture la ñuy def. ensuite maintenant li ci des mooy nii bu fekkee ni dañoo dégager des fonds pour aider l'Afrique ñun am na ñu plan boo xam ni moom moom la ñuy wax le plan Sénégal émergent projet yépp yi ñu soxla ñu ngi ci biir. te comme ambassadeur u Sénégal bi nekk Russie jot naa woote forum économique foofu ba exposer leen plan Sénégal émergent bi def naa Russie am na ñu idée. Fatima Silla ñu gërëm ko des ak beneen Fatima mbokk yi bi la yoon Fatima Diallo mu yëral ñu li gën a fës ci xëtu njëkk yéen kaay ay ca ñu dem daal di koy door ak vox populi mi xëy ci kàddu yi nga xam ne sëriñ Muntaxa Basiiru Mbàkke xalif bu Tuuba daal dina koy yëkki jëmale ko ci soxna Ayda jàlloo moom soxna Ayda Diallo nag nekkoon soxna sëriñ Béthio Thioune moom soxna Ayda Diallo nag moom mooy jégalu xalif bi waaye it di jégalu tarixa murid ak umma islamique nee na nag fu mu toll nii ci ndigal lay woy quotidien yéen kaay moom it ci mbir mooma la daal di àddu wane soxna Aida jàlloo toog daal di musóoru ba pare teg kol gi ci kawam moom soxna ayda Diallo nag ñu ne génnee nañ ko foofee ca ngaabu ki ko fa génnee nag di gendarmerie ci libération yéen kaay ñu ñuy xamal ni gendarmerie sax budul woo nag ñoom làmbaay ñaaw l'observateur le journal du groupe Futurs Médias di delsi ci nañu ko génnee foofee ca ngaabu moom soxna Aida Diallo ak i ñoñam ñi nag Mame Mbaye Niang nekk conseiller municipal bu Touba Mosquée moom nag moo tax ba soxna Aïda Diallo taalibe murit yi ñu ci kawam Serigne Modou Lo bu ngaa bu nekk président bu Safinatul Aman ne Aïda jàlloo ak i ñoñam dinañ leen génne ca Touba waaye it ca ngaabu ca booba jamono L'As Quotidien moom di wax ci commission santé bu assemblée nationale ak yaaya Sow mi nga xam ne jëlee nañ ko ci vice présidence L'As yéene kaay nag di njiitu jiitu réew mi Macky Sall ñi ngi wax ci ay mbiram noppeegunu ginnaaw nag bi mu jëlee Sori Ba ca postam nekkoon directeur général appui aux Sénégalais de l'extérieur waaye it Moustapha Ka nekkoon directeur des droits de l'homme Samba Ndiaye Seck euh, ca postam directeur cabinet secrétaire d'État à la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance critique ca booba jamono moom addu ci mbiri Khalifa Ababacar sal ak ñi nga xam ne ñoom ñoo faree ak Abdoulaye Wade le pape du soppi ne Khalifa sal nag moom ginnaaw bi ñu ko bàyyee mu ñibbi si njabootam moom seetiwul pape du soppi ba waral nag ñoom ex maire de Dakar bi waaye itam moom Khalifa Ababacar Sall fu mu toll nii moo ngi foofee ca Paris amal bilan médical waaye it di jaajëfal ñi ko jàppale woon rawatina Anne Hidalgo nekk maire bu Paris Sud Quotidien delsi si coowal troisième mandat ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo fare que njiitu réew mi Macky Sall bokk na ci Zator Mbaye ay kàddoom ci yéenekaay bi ne nag waruñu leen xaar ci yenn débat yi Abdoulaye Wilane parti socialiste ne lu jot yomb Moussa Sarr bu LD ne nag buñ leen yóbbu ci yenn ay débat yu prématuré la Moussa Sow PIT ne nag faaw nag ñoom ñu bañ a distraire ñi nga xam ne ñoom ñooy askanu Sénégal tribune moom it daal di addu ci wàllu troisième mandat ak amadu Ba ñu ne nag moom amadu Ba ci jamono jii moom mooy déranger palais présidentiel ak ñi ànd ak njiitu réew mi Macky Sall ndax njootu nañ ni moom fauteuil présidentiel bi moom la bëgg jël l'exclusif yéenekaay ni nag euh, ginnaaw ay kàddu yu sori kaba yëkk waaye it jafe-jafe yu ñu nemmeeku ci dakaar rawatina rébellion waaye it ak pëccëxoo foofee ca Fatick amadu baa fu mu toll nii mu mel ni nag njiitu réew mi Macky Sall moom la teg gët ndax nag moom dañu njortu ni nag dafa bëgg nekk président 2024 waaye it boo moywul loolu du ko jural jàmm moo waral nag ñenn ñoo xam ne jege nañu njiitu réew mi Macky Sall ñoom ci tànk yooyu la ñuy dox réew mi quotidien daal di bind ci rationalisation communication présidentielle ñu ne nag njiitu réew mi Macky Sall fu mu toll lii mu ngi gën di wéy di taxaw waaye di dëggal boppam ndax nag am na structure yu bëri yoo xam ne ci parteem la ñu nekk lu mu leen doon jox daal na koy dakkal ñenn ñoo xam ne ay libéraux la ñu ñoom it dégg nañ seeni kàddu l'évidence daal di ñëw ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy jàpp ne ñoom ay transhumants lañ bokk na ci Cheikh Tidiane Gadio Abdoulaye Baldé Aïssata Tall Sall ak ñeneen ak ñeneen jàpp nañ ne nag njiitu réew mi Macky Sall naam ñoom fekk nañu njiitu réew mi waaye it joxu leen loo xamante ne mën nañ ni jàpp ni lii dal na xeel xel Dakar Times moom daal di xëy ci scandale bu rëy boo xam ne daal jàpp nañ ni foofee ca police la am ak système boo xam ne tegoon nañu ko ci aéroport Blaise Diagne bu Diass ak ay agent état yoo xam ni compagnie Teranga sûreté aéroportuaire la ñu fa tegoon ngir nag di voyager loo ay nit te seeni kayit matul coowal immeuble yi nga xam ne nag ex-lion yu basket yi ñoom ñoo faa nekkoon ñu ne nag fu mu toll nii ginnaaw nag ñenn ñi bañ nañ ne duñu génn yooyu la immeuble préfet moom mise en demeure bu saf sàpp la leen jox mu jeexal ak 24 heures ca page 6 ba ca jàmm gën Sicap Mbao lu yéene moom moo fa xew Yacine Sané am ci lu tolloog fanweeri at ak benn moom nag ginnaaw bi ay agresseur këfee saagam ci ab kaar Njaga Njaay mu bëgg nag daw dab leen ngir nangu saa bi ci noonu nag la daal di ñàkk bakkanam mbokk yi li may li yéen kaay bindoon ci bésu kon mbokk fii lañ koy a ñaanalante wasalaam ngërëm ko bu baax moom soxna Fatima Diallo ci ni mu ñëralee li gën a fës ci xëtu njëkk yéenekaay yi jaajëfal leen mbokk ndax loolee mooy ndax képp xibaar yi ci première chaîne de télé privée bu Sénégal gërëm ñi ci jàpp ba mu yemb yeneen i xibaar incha allah rédaction bi 19h ak 20h laata loolu ñu bàyyi leen ak sunuy programme jaa ngeen